ma tànk fii ci Kanda Fodé Bayo mooy euh, taw bi nawet ba mu commencé ak léegi dañ fee seetlu inondation yu métti yoo xam ne tey ñu suñu neexoon ñu wax ne inondation yi li am fii Kanda dina néew nga gis ko biir senegal ndaxte euh, askan wi fii ñi li ñuy dund ci seen kër yi dafa jéggi dafa métti tey nii may waxe yow mënoo dugg seen kër yi fii soo duggoon ci biir kër yi Euh, so soo doon bëgg a dugg ci biir koñ bi doo am foo jaar ndox mi yàgg na fa mu ngi verte mu ngi mel noo xam ne dafa ñaaw loolu la ñëw gis ndax ñii suñuy dëkkandoo lañ ñu dugg ci kër yi benn par benn gis la fa nekk moo tax ñu am initiative ñëw wut suñu moyen moyen personnel indi ko jàppale ko waa population Kanda Kanda Fodé Bayo. lan nga ci waa Kanda. waaw liñ leen indi indi leen ceeb saabu. indi nañu moustiquaire te it ñu ngi xalaat yeneen action yoo xam ne euh, yoon yemul ci benn mais loolu daal mooy loo xam ne indi nañ ko ceeb indi nañ fi ceeb bu doy indi nañ fi euh, saabu euh, yooyu daal lañ bëgg a ñëw indi ko jox ko askan bi jox ko suñuy mbokk yi suñuy dëkkandoo ndaxte ñu ngi ci ay jafe-jafe yu métti métti. ñun dañoo yaakaar ne population fu mun nekk mun doon foo xam ne day am ay inondation Euh, autorité locale bi war na xalaat nu muy defee politique d' assainissement mais loolu moo fi manqué il faut ñu am vision politique d' assainissement dëkk bi yaatu na terrain yaa ngi fi loo lu ne da ngay wut partenariat xol nu ngay defee partenariat boobu pour mën a déloger population bi nga xamante ne dañoo nekk ci jafe-jafe pour mën a mën nga leen wutal loolu benn solution la beneen solution bi mooy nga ut partenariat boo xam ne as dañuy ñëw assainir koñ bi xool nu ñuy def def ay canaux de d'évacuation ba ndox mi su su su tawee lu mu bëri bëri mu am fu mu jaar su ko defee nit ñi nekk ci jàmm mais politique boobu la autorité locale yi amul toujours dañoo bàyyi les populations à leur fin dañ leen bàyyi euh, en laisser dañ leen laisser en rade bàyyi leen seetaan leen fii ñuy wax ni amul benn autorité locale bu fi euh, taxaw tëgg teg fi tànkam masawu leen coono loolu moo ñu gën a métti autorité locale yi nga xam ne ñoom fee ñu nekk ku leen fal ñoom suñu falo yàlla ak ñii fi toog nii nekk ci ay jafe-jafe waaye ba jafe-jafe yooyu bañ ko amee gisuñ ci kenn ci autorité locale yooyu ñu ñëw masawu leen coono donc ñun nag ci suñu euh, initiative di taxaw euh, mouvement taxaw kawoon ak SADG Nous am suñuy moyens personnels, nous mobiliser ko ñëw taxawu askan boobu nga xam ne ñu ngi ci ay jafe yu évidemment Sadji Amat Sadji pour responsable politique à Kanda nous avons un candidat la ci mairie bu kawoon bi élection yi di